kon mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey ay juróom fukk ak ñett ci suratul ankabut cinquante trois suratul ankabut wa yastaajiluunaka bil azab إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين kon incha allah xam naa ñu ngi bàyyeeg Cheikh Ousmane jëlal ñu ay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون
بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sun boroom subhanahu wa ta'ala mu ne yow yonent bi day yéeféer yi wa yastaajiluunaka bil azab ñi ngi nekk di yàkkamtiloo ci yow pour nga gaawe leen ci mbugal mi walaw la ajalum musamma ca budul woon ak dig boo xam ne tudd nañ ko ba pare la jaahumul azab kon doon na leen dikkal mbugal ma wala yatiyannahum bagtatan doonte ne sikk amul dana leen dikkal ci mbetteel wa hum la yash'urun te ñoom nekkuñu woon di foog loolu di ko yaakaar yastaajiluunaka bil azab ñi ngi sakku nga gaawe leen ci mbugal mi wa inna jahannama la muxiitatun bil kafirin doonte ne sawaras jahannam day doon luy luy peeg ndar képp la nga xam ne mooy yéeféer yi yawma yaxshahum alazaabu min fawqihim bis bam leen di muur mbugal ma ca seen kaw wa min taxti arjulihim ak ca seen suufi tànk ya wa yaqulu zuqu ma kuntum taamaluun suñ borom di leen wax mos leen li ngeen nekkoon di ko jëf yaa ibadiya allazina amanu suñ borom mu ne ay yéen samay jaam yi nga xam ne da ngeen a gëm inna ardi wasia sama suuf bi day lu yaala fa iyaaya faabuduun man kese na ngeen ma jaamu ca xam ne kullu nafsin zaiqatul mawt bépp bakkan dana ma dana ma sa mos dee summa ilayna turjaun gannaa ba ci man ngeen di nekk ñu leen di delloosi wallazina amanu wa amilu salihat bis ba nga xamee ni ñi nga xamee ni nag ñoom dañoo gëm ci jëf-jëf yu yiw ya lanubawwi annahum min aljannati ghurafa dañ leen dalal ca àjjana la nga xam ne mooy taax yu kawe ya tajri min tahtiha al anhar yoo xam ne dana daw ca suufam lii nga xam ne mooy dex ya xaalidina xaalidina fiha ñu saxfe ba faw ni'ma ajrul amilin ak a baax payu ña nga xam ne dañ doon liggéey ca mooy allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkaluun mooy ñi nga xam ne dañoo muñ te ci seen boroom kese la ñuy wékku mbokk gis nañu suñu boroom mu ni wa yudillu allahu zalimin yàlla day sànq toñkat mboole mi yonent bu ñu masaan ñëw ci seen xeet liñ leen di jëkk a wax mooy tuub leen dellu ci yàlla yàlla ubbil leen barkay asamaan ak barkay suuf su ngeen ko deful yàlla dana leen mbugal bokkoon na la xel nangu woon bu dee am na luñ ciy essayé rek nañ essayé ànd ak moom ca la mu wax ba xam xéewal dana ñëwam déet waaye mboole mi xeet lañ tontu woon seen yonent moo di ne nga ne buñ la gëmul mbugal day wàcc ci ñun wàcceel ci ñun mbugal bu dee am nga ci kattan comme na nga xamee ne nii waa Makka laajoon nañ ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam te ñu waxoon ko démb mooy aw tusqit alayna kisafa min as-sama feñeen fi ñu ne ko fa amtir alayna hijaratan min as-sama ay bu dee ne daal nee nga buñ la gëmul dañuy alko gëmuñu la indil mbugal mi léegi ñu ngi noonu sunu borom nag ne li tey mbugal mi ñëw ci ñoom day doonte ne yeyoo nañ ko mooy digle boo xam ne tudd naa ko ba pare ca mbokkit suñu borom yàlla nekkul kuy topp ay jaamam ci ñu koy wax muy def moom mooy dogal lu ko neex loolu luy ab jàmbur a gëm lu nekk nag da ko wutal ab jig kon ut naa digal bu ma leen war a mbugal bu ñu yàkkamti fala yastaajiruun comme na nga koy waxee ci yeneen aaya borom bi mu ne li nga xam ne nii moom mooy bu dul woon a dig bañ tudd kon mbugal mi doon na ñëw waaye na sa xel dal dana ñëw ca buy ñëw dana leen ñëwal ci mbetteel mbokk fekk duñ ko yëg soo xoolee ñaari aay yu tegaloo aay bu njëkk bi def na yastaajiluunaka bil azab aaya ñaareel bi mu ne yastaajiluunaka bil azab aaya bu njëkk bi ñi ngi ci namoon mbugalum àdduna comme ne nga gëmuñu la ana mbugalum àdduna mi suñ borom mu ne dana leen ñëw ci mbetteel ba delloo ci mufassiruuna yi li ñuy firi aaya bi mooy li xewoon keroog xare badr keroog xare badr mbugalu yàlla wàcc na ci kilifa yi firi ci mbetteel ndax ñoom bi ñuy génn makka comme naka suñu borom nettalee rek ñu ngi génn bataran wa riyaa annaas riyaa annaas demuñu woon lu dul puukarewu ak ngista lañu nit ñi ndax jàppuñu woon ne muhammad ak sahabaam doy nañ leen am xëy abu jahal ki nga xam ne mooy abu sufyaan mi ko woo woon wallu yónni na ko ndaw ne ko kat man ngeen a dëpp ndax man rawee la naa njëgg mi mu ne déedéet kilifa gu toll ne man ñun waa màkk buñ génnee ñëpp war nañoo xam ne génn nañu daañu dem ba badr ñu rey fa suñuy giléem suñu jaam yi jigéen ñi feccal ñu bu ko defee arab yi xam ne ñun génn nañu waaye du ñu dëpp ci noonu ñu dem nekkoon junniy xeexkat te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñetti téeméer rek la àndaloon donc mën nañu wax ne loolu ah amuñu luñ cay yaakaar ci lor waaye suñu borom yàlla dikk leen fu ñu foogewul woon ñoom ñetti téeméer yooyu xeex ak ñoom dàq leen rey ca ñoom juróom-ñaar fukk yeew ca ñoom juróom-ñaar fukk yóbbu madina loolee kon moo tax yonent bi alayhi salaam ba mu leen jóoree ci xare ca teenu badar ba mu woo leen ca ñoomu walid ak ñoom umayya ibnu xalaf ak ñoom abi jahal ak kilifay màkk yooyu yépp yonent bi tiim leen di leen woo kenn par kenn ay diw ay diw ay diw man de li ma yàlla digoon jox na ma ko ndax yéen la leen yàlla tokkoo woon gis ngeen ko gis ngeen ci la ko Omar ibn Khattab radiyallahu anhu doon waxee ne ay yëm yàlla yónni ñi dañoo dee ba medd mu ne ko ay Omar li may wax day gënoo leen koo xam gënoo leen koo dégg mbir bi rek mooy mënuñoo tontu ay kon mbugalum àdduna dikkal na leen ci mbetteel amma mbugalum àllaaxira mooy ñaareelu yasta'jiluuna biki sunu borom mu ne bëggalum àllaaxira mi ñuy weddi ba koy yëj naan mata hadha al waadu in kuntum sadiqin ñu waxoon ko mboole mi yeneen suñ borom mu ni mbugal la boo xam ne ni day bu ñëwee dana ndar képp yéeféer yi te it en général ci mbetteel la leen di dikkee mbokk dee toujours day bett yéeféer ndax suñu borom mu ne yawaddu ahaduhum law yu ammara alfa sana doon nañ bëgg yahud yeeg mushrikuuna yi ak a neexoon ñu mën a dund lu ma junni at ala kulli xaal mbokk lii di sakaratul mawt di la nga xam ne mooy manditam de dafay bette ab yéeféer su ko defee lu muy wax rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarat ay yàlla dimbali ma ma delluwaat gannaaw rabbi lawla axartani ila ajalin qarib ay yàlla dimbali ma rek même bu doon damay dundaat un jour sax dimbali ma rek yàlla ngiree ma mën a tuub ngiree ma mën a def lu baax suñ borom ne déedéet kon noonu ko yàlla nettalee mooy kon bett na leen seen dégg bett na leen borom bi it ne buñ demee sawara da leen di peeg peeg goo xam ne mbëgal ma da leen di jóge ci suuf di leen jóge ci kaw looloo tax mbokk ab yéeféer ci sawara amul fu muy taxaw amul fu muy toog day mel ni cin boo dugaloon ay ñebbe di ko baxal nga gis noonu ñuy tourner di tourner duñu toog benn place noonu la yéeféer di mel ci biir sawara fu nekk la ko mbugal muy tourner borom bi mën a yatuufuuna baynaha wa bayna hamimin aan di tourner yahmu ca yahmuum ca hamim ca la nga xam ne nii mooy mbugal ma leen di lakk ak yeneen yi ay kon di leen di peek di leen dikk ci suuf di leen dikk ci kaw loolu moo tax ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne kii di abi jëhal munu koo génn sawara ndax kéeféer la dee dafay sax xaalidina fiha waaye mu ne ñaan na yàlla mu teg ko moom ci kaw sawara ñu wutal ko ci lu mel ni ay dàll waaye mu ne yuur ga day bax abu talib maa ngi juum di kan laa waxati sax ah ah dama juum abi talib lay wax abu talib mi nga xam ne moo yar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxay wa ko lu raw na ko bàyyam waroon a taxay bu doon dund waaye deeyaan ci kéefér mu ne ca kaw sawara lay nekk mi ngi noonu nee na bu dul woon ak mooma da nekk ca fa gën a suufe waaye ñaan na yàlla muntu gën a sawara ñu teg ko ci kaw sawara waaye yuuram nga day bax ca mooy ki gën a woyof mbugal ci sawara donte ne lam teneen ci la sit bëriwul gis ngeen kon suñu borom subhanahu wa taala mu ne noonu la ca boole di leen yëjji di leen toroxal nan leen mos leen li nga xam ne yéen yéen a ko jëfoon loolu mbokk mooy tontu bu jëkk suñu borom yàlla tontu yéeféer yi léegi nag jaami yàlla yi nekk ci biir yéeféer yooyu ñu bundu xatal leen tere leen a dund diine seen borom mu ne ay yéen yaa ibaadi ay yéen samay jaam mbokk yàlla bu ñu woo ay jaamam day wane ne moo ñu bind day wañe na moo ñu moom xam leen ne sama suuf bi day dafa yaatu kon na ngeen ma jaamu man rek ndax jaamu moo taxoon ma bind leen jaamu moo tax ma leen di wërsëgal ngal la way kon na ngeen fexe jaamu ma ak nu ngeen ko mën a defee gàddaay leen dem ci sama suuf loolu mbokk lañ cey jëkk a dégg mooy ñun ay jaamam lañu dañu war a def ay ndigalam tey ji da ngay xool armée bi ñi engagé wu dans l'armée seeni chef am nañ droit ñu tëdd ba trois heures du matin ñu sonné alerte yóbbu leen foo xam ne xamuñu ko sax da leen direct Casamance wala feneen wala am na kenn ko may nettali ne am na ñenn militaires yi yoo xam ne dañuy yàkkamti woon di dem bitim réew ndax dañuy quadruplé presque seen salaire gars yépp bindu avion bu fees del biñ ñëwee ba aéroport seen général d'armée bi wàcc aéroport ne leen directement Casamance te ñoom tàgg woon nañ seen famille ñu ngi dem xaw ma booba fu ñu doon jëm Libéria wala ci dëkk yi yi guerre yi am ñii bëgg a rey seen bopp te mënuñ ci dara parce que c'est des militaires amuñu droit discuter ay ordre yow jullit nag yaaroo militaire ndax militaire moom payu adduna dong la yaakaar ci militaire bi amma yow da nga yaakaar adduna ak àllaaxira kon sa borom yàlla ndigal ba mu la def ba mu la jox da nga ko war a def suñu borom nag mu ne suuf sama suuf bi yaatu na ay kon signal ne visa ñépp ay jaamam ne leen dem leen fu leen neex ci kaw suuf su ko defee nga bëgg a dugg ci am réew ñu ne la doo fi dugg loolu mbokk amuñu ci droit ndax suuf bi suñu borom mën a maaka moom ina ardi wasia fu neex waay war na dem wante ne li metti mooy suñ diggante ak occidentaux yi masalan ngay gis ne ñoom nu mu leen neexee la ñu ñëwee suñ réew yi te ñun suñ doom yi ko bëgg a dem ci ñoom ñoo indil la jafe-jafe bu dul jeex ala kulli xaal mbokk loolu moo tax képp koo xam ne it am nga pexe yoo def ba mën a dem it duñ ne pexe yooyu nga def dafa xaram ñooñu la xañ dëkk ba ñoom ñoo def lu xaram su ko defee suñ borom mu ne suuf bi yaatu na na ngeen ma jaamu man rek te jubluwaayi mbokk mooy ñu jaamu yàlla bañ ko bokkaaleeg dara fépp fu ñu la woo ci ne kaay dem jaamu leneen lu dul yàlla nga la waayi baleen fa ca dem loolu nag dana nekk ci réew ak réew comme nu muy nekk ci dëkk ak dëkk mën na nekk sax jóge ci kër dem ci kër ay fépp foo xam ne yaa nga fa ñu xatal la ci jaamu yàlla jógal dem te yàlla dafa am lay ci kaw jaamam ma tax mbokk gis ngeen li xew ci àdduna bi masalan li xew Syrie li xew Irak li xew feneen ay centaine de milliers bal ay millions ci doomu aadama ñu bàyyi seen mboole mi teraanga gàddaay ñii jaar ci géej gi ñii jaar ci désert bi ñii nekk ci biir neige bi lu tax loolu pour rawale seen bakkan am déet kon nag rawale sa diina moo gën a yey loolu it suñu borom ni ah gàddaay leen ngir rawale seen diine doonte ne ni borom bi subhanahu wa taala lii bu ñu koy waxit ñun bu ñu nekkee ci place yàlla may ñu ñuy dund suñ diine kenn bu nduqataa la ñu war nañu sant yàlla ndax aaya bi luy valable la ba ila yawmi din yéen a ngi gis lu bari ci ay Russie ci ay Bosnie ci ay Albanie ci ay kaza wa kaza lu yàggul dara képp ku fa feeñal diine ñu teg la mbugal yoo xam ne mbugal yu tar la kon bu ñu amee chance mën a toog tabax suñuy jàkka di julli di woor di aj makka kenn bundu xataa lañu loolu mbokk xéewal gu rëy la ñu war cee sant yàlla subhanahu wa taala léegi nag yow nga ne ah suma gàddaayee ah gàddaay loolu wóorul kat ndax maa ngi risque sama vie dem fu ma xamul maa ngi dem foo xamee ne nii mën naa fam fitna suñu borom ne gis nga sa kër gii boo ko bawul ci yàlla taxit dee da la fi mës a génne am déet kullu nafsin zaiqatul mawt soo nangu la gàddaay pour rawale sa diine bis dañ la bett jël la génne la kër gi ak dëkk bi yépp yóbbu la fa nga xam ne mooy barzaq loolu kon bul ragal na nga dem gàddaay ci xam ne lu mu yàgg yàgg ci yàlla ngay dellu borom boobu nag dalal xel jullit ñi ndax mbokk gàddaay lu tiis la bàyyi say dëkk bàyyi say am-am dem dans l'aventure loolu lu tiis la waaye suñu borom mu ne ñi gëm tey jëf lu baax day dinaa leen dalal ñoom ca àjjana ya la nga xam ne nii mooy taax yi gën a kawe ca mbokk loolu mooy li lay may kattan ci gàddaay gi woyof ci yow dañu naan cofeel gi mbëggeel di joxe moo tiim fit wa nga xamee ne nii ki ragal da koy am ba ko doomu aadama bu ragalee mu ci def lu nekk waaye nag bu amee lu mu bëgg nag ci la rawa ci xool leen suñu ndaw ñi teg seen bakkan yi ci océan bi ne barsa wala barzaq kese ndax man ngeen a mas ngeen a déglu ci documentaire yi ñuy def ci ñoom rawatina ñuy jaar yoonu suuf bi ndax mas ngeen a dégg ñaata coono la ñuy daj wallahi am na ku ma ci mas a dégg muy nettali nettali ba wone tànkam sax dóor nañ ko ci bal balu fetal ci tànkam tànk bi lagaj waa ji pare na ko waa léegi nag luy pexe bu ne luy pexe su maamatee yoon delluwaat jeex na parce que pour ñoom il faut ñu teg seen tànk Europe kon it yow jullit bi nga xam ne àjjana moom nga bëgg a jëm ak lum la jaral désert beeg ay kënoog ay naaj bu tàng ak ay lépp maadaama yaa ngi xalaat ne man day fii ma jëm àjjana yoonu àjjana la dara dootul woyof ci yow te sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa man yuhaajir fi sabilillah thumma yudrakuhu al mawt faqad waqa ajruhu ala allah ki génn jëm ci yàlla fu ko dee mën a dabe fayuf yàlla ga dal na ci moom même bu dee ne jëmul woon fa mu bëggoon gàddaay jëm kon ñooñu àjjana maa leen fay waajal taax yi di leen fa xaar te mbokk àjjana ay daraaja la yu kawe tiimante ni biddiw yi tiimante yeneen ci bi alei salaam nee ne téeméer mi ngi noonu téeméeri daraja yoo xam ne duna rek yàlla da koo jagleel yonent yi wala shuhadaa yi waaye da nga gis jullit yu simple yoo xam ne dañu dëggal ay yonent yi def lu baax yàlla yëkkati leen ca taax yu kawe yooyee yàlla na yàlla boole ñu ca suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne yaa ngi gis dex yaa ngi daw ci seen suuf dex yooyu dana ko détaillé ci yeneen aaya dexi meew ya dexi sangara ya dexi lem ya dexi ndox ya ak jinjeere ya ak yu demee noonu suñu borom yàlla subhanahu wa taala nag mu ni aka baax payuk ña nga xam ne dañoo jëfoon la yàlla subhanahu wa taala jëflu ndax yaa ngi gis ñu njëkk ñi suñu borom waxoon na waa safara zuqu ma kuntum taamaloon ay jëf yu bon lañ jëfoon amma ñi nga xam ne dañ jëf lu baax suñu borom mu ne aka baax pay gën ñoom doon pay waaye kan moo cay jot borom bi subhanahu wa taala mu ne mooy allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkaluun mooy ñi nga xam ne muñ nañu ba nangoo bàyyi seeni dëkk seeni am-am ca yàlla tax nangoo jëm foo xam ne xamuñu luñ fay fekki waaye ñu wékku ci yàlla seen boroom suñu boroom yàlla mu ne ñii day dana leen dal ci àdduna ca buñ ñëwee àllaaxira it texe gu màgg googu moo leen di xaar insha allah cheikh ousmane
لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله يعقلون
barakallahu fiik suñu borom subhanahu wa taala mu ne wa ka ayi min daaba moo ana ñaata ci luy dox ci kaw suuf laa taxmilu risqaha te du gàddu wërsëgam allahu yarzuquha wa iyaakum yàllaa koy wërsëgal di leen wërsëgal wa huwa samiu alalim te mooy dégg lépp mooy aji xam wala in sa'altahum bu doon da nga woo ab yéeféer laaj leen man xalaqa as-samawati wal ard waaw ku bind asamaan yi ak suuf wa saxara ash-shamsa wal qamar tàggat jant bi ak weer wi la yaqulunna allah la ñuy wax mooy yàlla ko def fa anna yufakuun waa ñoom naka lañ leen dëppe seeni xel allahu yabsutu rizqa liman yashaau min ibadihi wa yaqdir la yaqdiru la suñu borom de muy tàllal wërsëg ñeel ku mu soob ci ay jaamam moo koy gàttalit inna allaha bi kulli cheyin alim sa borom yàlla bépp mbir mooy aje ko ko xam wala in saaltahum man nazala min alsamaai maa boo leen laajoon mu moom kan mooy wàccee gi jële kaw asamaan lii di am ndox fa axyaa bihi al arda min baadi mawtiha mu dekkal ci suuf gannaaw ba suuf deeyee la yaqulunna allah sikk amul ci ne daañu lay wax yàlla la qul ilhamdulillah nee leen koy kon boole ñu sant ñeel na yàlla bal aktaruhum la yaqiluun waaye la ëpp ci ñoom nekk ñu di xellu mbokk suñu boroom bu ñuy waxee gàddaay leen li xelu doomu aadama di jëkk a xalaat man fa ma jëm ana lu ma fay dundee sunu borom tontu ko tontuwaale mboole mi ay jaamam ca mooy ana ñaata luy dox ci kaw suuf ca amul magasin amul saq ci pourtant day bus bu nekk dana lekk lam war a lekk dana naan lam war a naan mbokk julit suñu borom yàlla mooy wërsëgal ay jaamam boo xoolee sunu maam yi daanañ ci joxe misaal dañ naan dafa yeex ne kakkatar kakkatar mooy bàyyi ma bi gën a yéex ci bàyyi ma yi mu tudde caméléon waaye caméléon boobu kakkatar boobu lan lay dundee mooy lii naaw lay dundee am déet weñ yeeg ah soccet yeeg yu demee noonu lay dundee sunu borom yàlla noonu mu ko may mu yeex noonu la ko may làmmiñ boo xam ne bu ko tàllalee dana mat presque ay quinze centimètres te dafa mel comme flèche lu ko romb na ko taf daal di koy jàpp ci budul woon ak loolu kon dana de xiif waaye gis nga yàlla subhanahu wa taala ni mu ko defal mbokk yàlla ngay gis sànqaleen ñu tuuti mu wutal leen seen wërsëg nga gis seen ñuy tontoñi dem dagg seen daggat di ko yóbbu di dajale moo ne noonu la ko defee it bàyyi leen ñi nekk biir géej nga xam ne ñoom ay ton la ñu lekk par jour te heure bu ñu bis bu nekk dañ leen jox seen ton yooyu ñu lekk ko par jour ni mu koy defalee la nga xam ne mooy janax yi gën a tuuti la koy defee la ñay yi gën a rëy ku nekk yàlla dana la jox la nga dundee ba pare suñ borom nee nañu wa yaalamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullun fi kitabin mubin ñee nga ci biir montagne ya ñee nga ca biir géej ga ñee nga ci biir désert bi ci tàngoor bu jigi dayoo suulu fa ku nekk fa nga nekk bal yow doomu aadama la ëpp ci ñun am na ay mbindaa fa yu nekk sa mbaq gi ñu tuddoo ko ay saan am na ci ay teeñaa yu mën a mesurer quatre mètres wala cinq mètres yàllaa ngi leen bàyyi sa biir boobu di leen jox sa wërsëg ci sa biir biir am déet kon ku nekk fa nga nekk suñu borom yàlla mu ne xam naa la te dinaa la fa jox la nga xam ne mooy sa wërsëg moo tax mu teg ci ne huwa samiul alim mooy kiy dégg lépp di xam lépp ca mooy yow jaam bi da ngay ñaan yàlla wërsëgal la wërsëgu teey te xam ni yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ni mooy joxe wërsëg te it mooy ki xam sa xaal bu mën a nekk borom boobu gis nañu ni bo nee na yéeféer yi koo ci woowoon laaj ko te wallahi ñi dàq bokkaale tey ci ci Sénégal jàpp ne sant ñu lu dul suñ diw kasa wa kasa koo ci mënoon a woo ci ab roq laaj ko na ko waaw diw asamaan bi kan moo ko bind jamais mu ne la sëñ diw moo ko bind abadan suuf nag lu ñu lay tontu mooy loolu koy xam nañ yàlla ko bind waaw jant bi ku ko tàggat muy def li nga xam ne mooy xéewalu jaami yàlla yi ci kaw suuf kan moo tàggat weer bi tontu lu du paas lu dul yàlla la gannaaw bi it boo leen laajoon waaw léegi ana kan mi ngi noonu wala boog suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne kon nag léegi naka lañu mën a dëppoo ba yow xam ne yàlla bind lépp yàlla mooy wërsëgal ci lépp ba pare ñu wërbatiku di jaamu keneen koo xam ne moom bindul wërsëgalul comme ni ñu ci xadisul qudsi suñu borom ne maag doomu aadama yi ñi ngi ci mbir mu rëy yowmal qiyaama ndax may bind ñu jaamu keneen may wërsëgal ñu sant keneen gis benn waay boo xam ne nii buy lekk da ngay dégg mu ne barke sañ diw su naanee ba pare jóg taxaw fuddul jërëjëf sañ diw mbokk loolu kon sunu borom yàlla mi nga xam ne moo ko bindoon wërsëgal ko moom lan muy cëram ci loolu loolu di mbir boo xam ne bu jara seetaat lay ñeel yow borom xel sunu borom yàlla moom nag gannaaw bam ñu ne muy wërsëgal ci wërsëg yi moom ñépp a ci bokk yem mu ne nag waaye maa koy gàttal ci ku ma neex di ko yaatal ci ku ma neex te loolu mbokk sans raison amul benn critère buñ ne lii ku ko am am wërsëg amul tey da ngay gis bu dee doole da ngay dem fekk benn waay mi ngi frenkulaay ci kaw piliaanam tegale ay tànkam ay ponk lu ko wër di ko yenul ay saaku ceeb di ko chargé ay camion am déet bu doon doole rek ñooy di alal ji day gis benn waay boo xam ne nii mi ngi diriger benn société jël ay cadre diplômé école supérieure ñii ñoo yor ay comptabilité ñii ñoo yor ay nangam ak nangam ak nangam matul matulul sax élève noonu ngay gis it xale boo xam ne service ña koy liggéeyal ñu ko mag fuufa ci nekk gis koo xam ne ci àll ba la jógee service am ñu juddoo Dakar yoroo Dakar a ci nekk ay kon amul benn critère bu doomu aadama man ni lii mooy joxe wërsëg lu dul ci yàlla kese lañ koy delloo tey jii bu ñu xoolee Sénégal ki ëpp lu mu fi importé ceeb ah yaakaar naa ne musul toog teg bangam ci musul toog benn bangam université am déet mi ngi noonu bal dañ ne tàng na la commencé woon fii di jaay bal sax moom ci boppam day wax ne sax bi muy doog a jow Dakar ndox la doon jaay tey il manipule des milliards kon nga xam ne loolu mbokk kenn mënu ko expliquer wërsëg daal yàlla koy joxe ay nit dañu nekk ay cheikh bokk fuñ jaar ci njàng ak yépp kii am kii amul ñi bokk ndey ak baay kii am kii amul ila axiri kon loolu day wane it ne dañoo war a dellu di sant yàlla yow mi mu tàllal sa wërsëg mi ngi lay nattu ndax da nga ko sant ndax da nga ko delloo ci yàlla yow mi mu gàttal sa wërsëg mi ngi lay nattu ndax da nga muñ muñ gu rafet wala da nga saalit uti ko foo xam ne ni fu xaram la ñoom ñaar ñëpp ci nattu la ñu nekk su ko defee ku nekk ci ñoom la ko yàlla féetale bu ko rafetalee dana ci am ngërëmal yàlla dana ci am dund gu tey loolu ñu bàyyi ci xel bu baax suñu borom yàlla nag mu ne lépp lu mu mën a doon mooy ka nga xam ne moo ko xam ca la baamuwaat ne boo leen laajoon kuy wàcce ndox jële kaw asamaan dundal ci suuf gannaaw ba suuf dee dañ naan la yàlla te loolu mi ngi tontu ñu weddi bi su penc am ki weddi ne doomu aadama bu ne demee ci biir suuf du mën a génnaat ba pare mën a gëm ne ndox mën na jóge ko asamaan gëm ci benn tool gàncax génn mu génne gerte gaag ñebbe jaag dugub jaag lu mu mën a doon loole ki nga xam ne dafa gëm lii la chaque ne bu xelloo di weddi ne day dekki day am ci yowmal qiyaama borom boobu nag subhanahu wa taala kon mu ne qul alhamdulillah yow mi xellu dellu wax alhamdulillah te loolu mbokk jullit mi ngi noonu bu wërsëg ñëwee alhamdulillah taw bi wàcc na alhamdulillah am nga alhamdulillah ñàkk nga alhamdulillah alhamdulillahi ala kulli xaal jullit fu mu mën a toll day sant yàlla looloo tax ba sànq léegi biñ paree ci julli gi ñun ñëpp def nañu 33 fois alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah bu dimisi incha allah léegi ñu def ko loolee kon jullit mooy ki sax guddi ak bëccëg di wax alhamdulillah alhamdulillah malheureusement nag ñu bëri ci làmmiñ ñi la yem ci yeggul seen biir xol ndax benn waay mën na julli léegi wax 33 alhamdulillah bu génnee fii la nga ne ko sëñ bi la nga def mën a sant sëñ diw rek gis ngeen su ko defee loolu ca làmmiñ ba la yem te lii lii suñu problème dëgg-dëgg mooy ñun baat yi ñuy wax xamuñu ko dégguñu ko mi ngi noonu suñu borom yàlla ne waaye li ëpp ci nit ñi xellu wuñu yal na yàlla boole ñu ca xel ña xellu bisimilah Cheikh Ousmane وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعبة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين barakallahu fiik sunu borom mu ni wa ma haadihi alxayaatu dunya xam leen ne nekkul dundug àdduna gi illa lahwun lu dul loo xam ni puukare la buy ittil nit ñi ca lañu waroon a def wa laibun ak ay po yu amul benn njëriñ wa inna daar al axira amma dundug alaxira nag la hiya al xayawaan moom mooy dëgg-dëgg dund law kaanu yaalamuun su doonte ne yéefir yi weddi xamoon nañu fa ida rakibu fi lfulk ñooñu nga xam ne bu ñu waree ca gaal ya daawu llaha muxlisina lahu diin ñu woo yàlla sellalal ko diineen falamma najjaahum ila al bar bu leen musulee yóbbu leen ci jiiri ja ida hum yushrikuun ci noonu rek ñu nekk di bokkaale ak seen boroom li yakfuru bima aataynaahum ngiree di weddi la nga xam ne joxoon nañ leen ko wala yatamatta'u waaye it ginee ñu bànneexu as mbànneex rek fa sawfa yaalamuun xel sa nañoo xam awalam yaraw moo tax yéefir yi gisuñu anna ja'alna haraman amina nañun defal nañ leen dëkk boo xam ne nii bu ñu warmal la bu am kóolute ca muy makka wa yutaxattafu nnaas min xawlihim te ñu ngi këf nit ñi ci seen la leen wër di leen rey ak di fi jaam afa bil baatil yuminoon ndax ñoom dañuy gëm ay neen muy ay xërëm wa bi nicmatillahi yakfuroon di ci xéewalug yàlla ñu nekk di ko weddi wa man azlam ma ndax xam ngeen ko gën a mën a tooñ mimman iftara ala allahi kaziba ci ki dóoral ci yàlla ay fen aw kazaba bilxaqi lamma jaa wala mu weddi dëgg ba ko dëgg dikkalee alaysa fi jahannama maswan lil kafirin ndax nekkul ci biir jahannama wàccuwaay ñeel yéeféer ya walazina jahadu fiina ña nga xam ne nag dañuy jihaat ci ñun yàlla day lanahdiyannahum subulana daañ leen jubal suñu yoon wa inna allaha la maa almuhsinin te yàlla day mi ngi ànd ak ñiy rafetal mi ngi noonu mbokk suñu boroom moo bind àdduna indi ñu fii te moo ko gën a xam mu ne xam leen dunduk àdduna gi day du dara lu dul li ci ëpp ay puukare la lëxwu mooy lépp loo xam ne doomu aadama ba gis nañ ne ma nga ca mu itteel ko ci leneen lu gënoon la mu waroon a def ca loolu itamit mbokk da ngay gis li nga xam ne mooy commerce lu baax la jaamu yàlla la mais commerce heure bu doxee sa digganteeg dem julli ji rek lëxwu lay tudd mi ngi noonu lëxwu lay tudd te mooy laa tulhikum amwaalukum wala awlaadukum an zikrillah nekk ak say doom di foo ak ñoom di dox seen service pour lu sàkk seen dund lo- loolu lépp jaamu yàlla la amma bu xisee ba dox sa diggante ak jaamu yàlla rek day gis na loolu lëhu lay doon te lëhu boobu nga xam ne am na ca loo xam ne lu ñuy tuddee am polo la ci yonent bi alayhi salaam doon toléré jullit nee na mooy nit ki di fo ak soxnaam wala nit ki di fo ak fasam di ko entraîner ci ci guerre wala di fo ci ay flèche am pour di entraîner wu ba mën a mën a tirer te ñaar yu mujj yëpp dalay won mooy lépp lu doomu aadama di mën a entraîner boppam ngir mu am kattan di mën a manipuler ngir bu jihaat ñëwoon mu mënoon a jihaat loolee da ngay gis ci po yi lislaam gërëm ci la bokk amma po en tant que po rek mooy dem yee yaag musique yaag caaxaan yaag nga xam ne amul benn njëriñu àdduna amul benn njëriñu àllaaxira tey jii waa ji nga xam ne nii dafa nekk mbokku ci yooyu ma leen wax ban njëriñu àdduna ak ban njëriñu àllaaxira la mën a am dara su ko defee jullit dafa war a moytu loolu xale mooy fo doomu aadama fi mu juddoo ba dem avant muy majeur loolee moom xëy na mënees na ko tolérer mu fa waaye nga la waay boo demee ba majeur xamal ne léegi nag passé nga mpoog rawatina nag nga dem yàlla dundal la ba nga dem ci deuxième étape ba mooy quarante ans war ngaa sori am po dara wuru laa yëkkatee ci lu dul loo xam ne loo lay jëriñ ci àdduna la wala mu la jëriñ àllaaxira borom boobu nag nee na àdduna looloo fi nekk waaye nañu xam ne dug dund de ba ko àdduna googu du dund gént la rek xam ngeen gént da nga ciy nekk léeg-léeg mu neex lool waaye boo yeewoo rek xam ne yeewoo nga gis ngeen wala ab théâtre bu gaa yi théâtre dana gaa yi théâtre ñu fekk waa joo xam ne moo doon bale douche sax ñu ne ko tey nag yaay buur mu sol mbubu buur toog gis ngeen ñu ne kii yow yaay ñu kenn premier ministre wala kii yow yaay général bi yow yaay milliardaire bi ci théâtre bi mooy milliardaire fekk lu mu añu kër ga sax bàyyiwu ko fa yooyu mbokk mooy àdduna benn théâtre la rek buy am bu nit ñi dee nag la ñuy doog a dellu ci réalité xam dëgg-dëgg lan mooy réalité su ko defee kon boo delloo nag àllaaxira nga doog a xam ne yow ci ay ay gént nga nekkoon nekkoon ci réalité ma tax suñu borom ne dëgg-dëgg mi nga àllaaxira waaye adduna mbokk lu muy yàgg-yàgg ah da ngay gis non seulement day jeex te même boo fi yàggee sax te jeexagul adduna soof la am déet mi ngi noonu laajal bilal ci am ak seen màggatum pël ma ma leen doon nettali fii ba mu toogee dégg benn jeune bi tëb fudd ah awa yàlla moo baax waay mu ne ko i da ngaa yàggagul ak moom rek waaw waaw waaye man mi yàgg ak moom gis nga maa ngi bëgg a jóg mënatumaa jóg su ma bëñ yëpp wadd na mënumaa lu ma lekkee du rees mënumaa nelaw mënumaa nangam te mbokk addunaa ngi noonu soo yàggee ak moom rek adduna soof la gis ngeen amma àllaaxira sunu borom mu ne la hiya al xayawaan ay xaqiqatul xayaa dëgg dëgg dëgg muy àllaaxira boo fa demee doo feebar boo fa demee doo sonn doo am problème doo xiif doo dee doo rafle doo dégg problème doo gis problème xaalidiina fiha abada sun borom mu ne loolu muy dëgg dëgg dund ñeel ki nga xam ne day xam loolu moo tax ba yow mi nga xam ne yaay julit fexeel ba gënali dunduk àllaaxira ci kaw dunduk àdduna gannaaw ba nga xamee li ëpp ci nit ñi yusiruuna alxayaata dunia ala al axira ñoom àdduna lañ gënale suñu boroom dellu ci yéeféer yi daa jële ñoom day suñu yéegee ca kaw gaal ya gaal gi nar a suux ñoom ñépp ñu woo yàlla sellalal ko diineem su leen yàlla musalee ñoom ñépp ñu commencé di bokkaale ca mbokk loolu yéeféer yi loolu lañ doon def bokkoon nañ ci lu aada yu ñu donde woon seeni maam suñ demee ba gaal gi nar a suux ku fa woo uzza wala laat wala hubal gaal gi day suux su ko defee dañ naan bii paa moom nañu woo yàlla kese sinon gaal gi day suux ca loolu it niñ leen ko yàgg nettalee kii nga xam ne mooy abu jahal mi nekkoon buuru makka doomam jadi ikrama aaye bii lu demee nii moo ko tax a tuub bi yonent bi ñëwee di ubbi makka moom waa makka daw làqu ca kaaba ga ki gën xamul mu ne man moom fu ma Muhammad gis dana ma rey daw daa ji dem ne day traversé géej dem biñ demee seen gaal di waaj a suux benn magum arab daa di jóg ne woo leen yàllay kese de wax leen yaa allah kese bu ngeen woo keneen ku dul yàlla rek gaal gi dana suux ikrama ne mais man ñun ñoog muhammad problème bi lañu am muhammad dana yàlla rek lañu war a woo bu dee ni géej gi ni mu yaatoo yàlla rek a fiy sauvé kon jiir ji yàlla rek a fiy sauvé daa di ne yàlla boo ma musalee ba ma génn ci géej gi danaa dem jaayanteeg sa yonente bi gëm ko yàlla musal ko mu dellu siwaat jaayanteeg yonente yàlla bi ba ni ñu leen ko waxee ci yoon yu dul jeex ci xasatu yarmuk fala shahida fi sabilillah radiallahu anhu loolu it ku nekk war ne ñaan mujj gu rafet mujj gu rafet te doomu aadama mbiram may mujjam nge noonu ala kulli xaal moo tax lenn ci suñuy maam dañ daan wax naan kéeféer ga woon day moo tane diine tey ji ndax kéeféer yi woon ci jamonoy xéewal lañu bokkale seen borom buñ demee ba ñàng ñu dellu ci yàlla wéetal ko mais nit yi tey moom seen musiba mooy xatta buñ demoon bay seen bopp di xar sax ñu ngi woo keneen ku dul yàlla ñu ngi noonu ñu ngi woo keneen ku dul yàlla ala kulli xaal suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ñoom day ñi ngi weddi xéewal yi ma leen jox nañ bànneexu xel sa lañoo xam te it mbokk suñu borom yàlla may na yéeféeru lu ñu bànneexoo tey jii boo demul Occident it yaa ngi xool télévision wala leneen boo leen gisee luxe yi ñu nekkee wax dëgg yàlla jéggi ne dayoo dayoo ñu seen mbalit rek la ñuy jël di oto yi gaa yi war di xoggaliku yëpp mbaritu tubaab bi rek la yaa ngi leen ñu naan am na cinq ak amul quatre ak ab tubaab ba ko waroon ba doy le sànni ko Afrique gis ngeen mboolem li ñuy taaroo fii suñu bare bare bari mbalitu tubaab bi rek la ñoo ca bànneexu ba doy le te suñu borom moo ko wax wala zina kafaru mooy ay inspecteur sàmb wala zina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am ñi ngi bànneexu guddi ak bëccëg donte ne sawara muy seen wàccuwaay kon it yow yéefir yow julit bi nga looy loolu bu mu la yéem yow ndawal julit des fois nga jaaxle man maa ngi dëkk ci jàkk ji guddi ak bëccëg maa ngi nii oma dara oma ka ngi gis saay saay yóbbu yéeféer moom mi ngi nekk ci limousine mi ngi nekk ci banque yi mi ngi nekk ci kii ci julliwul wóorul ah xamul yàlla suñu moroom mu ne waaw ngiree ñu bànneexu yatamatta'un mi ngi noonu comme bàyyi may waaye sa war a mooy lekk la nga xam ne mooy seen wàccuwaay borom boobu dellu si ci waa makka yi koy bokkaale mu ne ci yéen waa makka yéen de yéen a waroon jiitu ci wéetal yàlla ndax yéen sama néeg bi ma leen dëkkal tax na ba ma may leen dëkk boo xam ne bu yaatu la te buñ ñee màkk moo ko jibluwuñ ci dëkk bi kese alxaramul makk yi benn rayon la bu yaatu bu yaatu boo xam ne ay kilomètre la ci ndeyjoor ak càmmoñ fu nekk nga xam ne tey jii da masalan ñi dem màkk bëgg faa gën ñi dem umra dañuy gis fi gën a jege foo xamee ne nii moo génnee alxaram bi mooy fi ñu tuddee masjidu Aïcha fa la ñuy armale pour ñëw armalaat ay kon waxuma dëkk bi mais même li wër dëkk bi yépp yéeféer yi dañ ko war maaloon yàlla mu ne maa leen ko defal ca yéen a gis dëkk yi ngay wër léeg-léeg ñu ñëw xeex ak ñoom rey leen jël leen def leen ay jaam yéen yéen a ngi nekk ci jàmm ndax du ngeen sant yàlla ci loolu waaye nga am waa Makka war nañ sant yàlla ci loolu waaye mbokk ñu ne war nañ sant yàlla ci loolu de soo déggoo mag ñi fi nekk dégg laay xaw ma ab laay baykat bi fi nekkoon waaye ab laay kii ca te faatu ala kulli moo def daan démb metti naa da nga daan laay ñaax waaw ah ah laay mbub jazakallahu xayran laay mbub moo daan wax naan démb metti naa da nga daan tëdd ba gudd jot buur tëggum dëndëm na jóg leen fii ku fi fanaan dib jaam te sunu maam yi mbokk loolu lañ daan def dañ daan toog ba deux heures du matin benn armée jóge fa la rek taal dëkk bi jigéen bu génn ñu jàpp xale bu génn ñu jàpp góor gu génn ñu rey ramas yépp def ay jaamu yëpp gis ngeen bañ jógee foofu tubaab yi ñëw fii avec la traite négrière des siècles kenn xamul ñaata millions ca suñuy maam lañ jël ñii ñu yóbbu leen Portugal ñii Amérique ñii Europe tasaare leen jaay jaar leen da ngeen dem la xam ne moo xaw gore gannaaw loolu passé guerre yi ñëw 14 18 39 45 suñu maam yi tasaaroo ci àll bi ñu foo waxee mbaa ne nekk ñu daw jàpp force la par force nga dem dem guerre yi loolu lépp mbokk matagul téeméeri at ba nga fi jógee de léegi 39 45 ak 14 18 yëpp matagul téeméeri at yàllaa ko nattewoon suñuy maam alhamdulilah ñun léegi da ngay reer ba suur delloo sa buntu kër yàgg sa njaboot ngeen nelaw ba xandoor ah loolu mbokk xiiwal la goo xam ne war nañ ci sant yàlla waaye ndax ku mel noonu war naa toog nelaw ba jant bi moo koy yee déedéet ndax ku mel noonu war na dégg hayya ala salaat ca jàkka ja mu lànk ba ñu wisi déedéet te mbokk kon doomu aadama war na xam xiiwal yi mu nekkee gannaaw ba nga xamee ne sa maam direct ñu ngi doon dund ci coono yooyu ñu dund yépp borom boobu subhanahu wa taala mu ne ndax nit ñi dañuy gëm ay neen te mooy xërëm yi ñu yaakaar ne mën na leen a jëriñ bu dee suñ jamonoy tey nit ñi dee ci bàmmeel yi ñu jàpp ne mën nañ leen a jëriñ am naa xiiwulu yàlla yi ñoom ñu daal di koy wet di sant keneen ku dul yàlla bokk suñu borom mu ni ana ko gën a mën a tooñ ci kiy duural yàlla te duural bi gën a mag mooy utal ko bokkaale mooy duural bi gën a mag bokk na ci it duural ko masalan utal ko la nga xam ne nii moom mooy ab yonent boo xam ne yunniwu ko wala boog weddi la nga xam ne mooy dëgg ga yàlla indi ci moom ki weddi alquran weddi yonent yàlla ak ka nga xam ne dafa sosal yàlla ay xërëm sosal yàlla ay yonent yàlla yónniwul suñ borom mu ne ñaar ñi ana ku leen gën a toon waaye mu ne ndax sawara amul wàccuwaay ñel yéeféer yi aha kay mbokk julit waxuma am na wàccuwaay ñel yéeféer yi waaye mboole mi jaami yàlla yi am nañ place biir sawara mbokk loolu yàlla yonent bi alayhi salaam moo ñu ko wax de nee na doomu aadama bi bu deeyee ba malaaka yi fekk ko ci bàmmeelam daañ ko laaj ay laaj kan moo nekkoon sa borom ci ban diine nga nekkoon loo doon wax ci yonent yàlla muhammad su dee tontu na tontu ba mu war a tontu daañ ko ubbil benn fenêtre da ko gis nga place ba la ca sawara yow la yàlla waajaloon nga dëkkee fa su doonte ne dundoo woon lii nga doon dund waaye alhamdulillah ubbi ko beneen fenêtre na ko na gis nga sa kër àddina mu nga nële bu bis biñ ci taxawee foofu mooy nekk sa kër mu ne déet yàlla aqimi saa yàlla taxawalal bis biñ ci léegi léegi ñu ne ko waa toogal fii rek ba ba gaa yi ñëw amma yéefir bi moom it naka noonu bu jaarul fa neex yàlla gaa yi laaj ko ay tontu laaj ko muy tontu naan hë hë hë daañ ko jëkk ubbil benn fenêtre na ko gis nga àjjana jee mun waaw ñu ne ko feele la yàlla tànnaloon pour nga war a faa dëkk boo jaaroon fa ko neex léegi nag comme jaaroo fi neex yàlla ubbi beneen fenêtre na ko gis nga sawara mun waaw sa place ak ne ci sawara bu àdduna jeexee foofu ngay dëkk ji loolu kon mbokk bépp jaami yàlla am na kër àjjana am na kër sawara léegi nag yaay sabab lu ana ci ban kër nga fay dëkk ji amma ña nga xam ne ñooy waa sawara seen place yooyu ci àjjana sunu borom subhanahu wa taala mu ne waa aljanna ñoo koy donn ulaika humul warisin ñooy donn seen place ya amma biir sawara moom heure bu ñu fa jóoree ay nit sawara ne ndax hël min mazid heure bu ñu jóoree sawara ne hël min mazid ba sunu borom yàlla subhanahu wa taala moo koy dalal moo doo ko dal almuhim moo di ne kon bépp yéeféer bay dox ci kaw suuf xamal ni sa place moom sawara du fees bañ naan amuñu fuñ ko dugal borom boobu nag wëlbati ko ne ñi nga xam ne day dañuy jihaat ci ñun daañ leen jubal suñuy yoon subula na xanaa mën nga jàpp ne yoonu yàlla benn la fii suñu borom ne subul mu ne déedéet mbokk dafa am yoon ci yoonu jihaat ñi nga xam ne ñi ngi jihaat def effort pour dina yàlla jóg taxaw fii na te yàlla rek tax ñu koy def danaa leen jubal samay yoon ñii jihaad pour mën a jël jàngale diine yàlla ji ci yàlla rek a tax danaa leen jubal sama yoon ñii jihaad ngiree sakku wërsëgu dagan fas yéene wu ñoo lekk benn dërëm bu xaraam danaa leen jubal sama yoon ñii jihaad di xeex ak seen bakkan ngiree jël seen njaboot teg leen fi neex yàlla danaa leen jubal sama yoon te mooy mbokk subulana mooy bépp yoon bu yàlla gërëm doomu aadama da ngay xeex ak sa bakkan pour mën caa taxawee loolu julli la koor la zakat la aj makka la lépp boo jihaatul du sotti ndax am na ñeenti noonu yu la wër yow doomu aadama noon bi jëkk gën a garaaw yépp mooy sa bakkan bi inna nafsa la ammaaratun bi suu illa ma rahima rabbi mbokk bakkan fiix la bëgg ak jàmm waaye luy coono bakkan bëgg ko il faut nga xeex ak moom ñaareel ba sheytaan noon bu mag bi mi ngi takku taxaw képp ko bëgg a jëm ci yoonu yàlla waxoon na yàlla la aqudanna lahum siratak al mustaqim sa yoon bu jub bi dinaa ci taxaw pour décourager la gannaaw ba am noonu yéeféer yi nga xam ne ñooy jël seen i armement jël seen i pexe xeex pour fay l'islam ñi bokk na ñu gën a garaaw mooy naafiq yi nga bokkal des fois sax mën na am koñ bi kër gi jàkka ji nga xam ne ñoo lay découragé ci jaamu yàlla ñii ñëpp ay noon lañ yoo xam ne il faut nga jihaad ak ñoom pour mën a def la nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala bëgg am maa nag bu dee sa yéene sell na sunu borom yàlla jalla wa ala mu ne la nahdiyannahum subulana daañ leen jubal la nga xam ne mooy seen yoon te yàlla muy ngi ànd ak ñiy rafetal mbokk ñiy rafetal mooy ñi jàpp ne yàllaa ngi leen di surveiller fu ñu mën a toll ñi jàpp ne yàllaa ngi leen di surveiller fu ñu mën a toll te mooy soo ko bëggee xam rek yow employé bi nekk ci biir magasin bi nga gis ne kat man kii nga xamee ni nii mooy sama patron mi ngi nekk ci biroom waaye mi ngi ma tiim ak caméra de surveillance am loo man ci sellal liggéey bi da nga ko def bokk naka noonu suñu borom yàlla mi ngi ci kaw arasham ba waaye dërë réeru ko ci li ñu nekk ci kaw suuf na doon la ñuy jëf wala la nekk yéene nekk suñu biir xol moo tax suñu borom mu ne ñooñu maa ngi ànd ak ñoom wa inna allaha la ma al muhsinin yàlla na yàlla boole ñu ca ñooñu Cheikh Ousmane